amalakum sen antonat Lat kina mulen yo kep kuy ganti sit bi ñu lay ñaan nga abonné ba cross notification bi moy tax yeneen ya, video ñu duggal yu nekk ñen gis ko information ben information du len fi timis la bu ñu julee amin amin amin lu baax la nga def ci jàmm gën ba nga fay dugg si xamoon naa ni jàmm gën mel ndax fa la ma fekk fii mu toll nii xam naa ni jàmm gën mel ndax fi la ma fekk ma ñëw nga defal ma ni ñëpp suba laa fi ñëw nga yóbbu ma fa nga dajal fa nga dalal autorité ma nekk ak moom nekk ak moom suba ba léegi ba nga yéeme ko du ma dem mukk te jàkkaarloo ma yow soo ma joxoon milliard te joxoon ma rajo bii du ma neex monsieur le maire ba ma toogal damaa toog ak moom léegi a ne ko su président de la république waxoon ne dama leen jox kenn ku nekk téeméer bu la joxul téeméer sa xol day naqari mu ne ma lu tax ma yokk cër ba nit ñoo ko xañ ak Mbacke yàlla nga fi yàgg boo fi yàgg yàlla nga am na jël sabu jàmbagan nga waxuma sama turu bopp turu jàmbagan lay waxe turu Sénégal lay waxe ñoo lay ñaanal yàlla nga fi yàgg sëriñ bu mel nii ku ko am ci jamono da nga ko war a mu yàgg te bu fi yàggee dafay ànd ak wér tasoo suñu yaakaar yàlla bu yàlla tax sa yaakaar kontaan nañu Mbacke suñu xol sedd na buñ amee jàmm nga ñëw buñ amee naqar nga ñëw buñ amee xale yu nekk yu bëri ba jàpp leen nga taxaw kon sëñ bi mënuñoo def boo amee bés bii nga xam ne moom nga am moom la seen maam fàggu su ma fa ñëwee dinaa teedee ñu ànd ak na ñun waa jàmm ga luy tuumi la tege suñu kanam. na nga fi yàgg. jërëjëf yal na nga wér. amiin ñi nga àndoon dem ba barki dem rek ñu ngi nii ñi nga àndoon ba ngay wàcc jàmm gan rek. waaye ku leen di xam ne leen maire bee ma toogal muy directeur marché poisson wax na ma bi muy yow ci yow ni mu meloon wax na ma léegi garab bi ko yàlla jox ma ak moom ñoo yendu hmm. kenn ku ne wax ma li nga def ci moom ak garab ba nga def ci moom kon su ma fa yendoo ba ngoon jot ma ñibbi te waxuma ñooñu la nga def ci ñoom kenn wax ma ko hmm. te may nekk li katu lu baax hmm. kon man xam ma lu mu ci ci màggal bak yàlla nga fi yàgg bak yàlla nga fi yàgg yàlla nga fi wér kontaan nañu trop soxna Soxna Mbacke ñoo ngi koy gërëm waa jàmm gën ñëpp a ngi koy gërëm. Mm. ndax foo mën a dem moo la fay demal. dem fa demee mot sëkk pour sa taalib bi sa ku jóge ci yow boo ko yebal ci mbooloo mot sëkk ndax kenn ku nekk dara jëye ci la yónni moom ngay demee. suñ bi ñoo ngi lay ñaanal yàlla ci yàgg. ko yàgg def naa la fi yàgg di fekk rek. Mbacke nga di ma teral. la yàlla teral ci kaw yàlla bu baax di sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax di sant suñu ñaari ah, di ñaanal sëñ Sidi alxuraan borom maam gudd fan ak wér waaw ah, Sidi alxuraan borom Daaru Salaam ak gaawaan di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na fi yàgg te ah ahlu Mbàkke gépp ahlu Faal gépp waaw ah, ñun ñu fi rek di sant sëriñ bi rek magal magal gii moom maanaam dafa neex a neex a neex a neex ba magali amul bu ci nakar ci yëpp ay neex ay bi mom da ci rawat ñu ngi ñaanal serigne bi rek diko ñaanal guddu fa na wër ak bokku ta mbak ahlu mbak gep gépp ak lu Faal gépp mbokku taalibe yëpp mbokku Baay Faal ñu tew ci magal gi kenn ku ci nekk turam ak santam suñu mbokk bay Faal suñu mbokk talib suñu mbokk jullit yi maanaam kulluum ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér màggalu ren gi ñu fekk ko ay ci jëmmi mam Bamba sama mbokk taalibe yi waaw ñi jot a ñëw waaw maa ngi soññ maanaam jubal dëggal leeral waaw li sëñ bi digle toujours ñu nekk ci rek waaw li sëñ bi tere ñu bàyyi waaw ndax sëñ Sidi a ah moom mën na kanamam mën na gannaawam de waaw te benn taalibeem bu ci nekk a ah man la sax xam ne lépp li nekk ci yow waaw yaa may dégg waaw mbokk taalibe di leen ñaanal man la sax fan a wér sëñ bi digle ñu nekk ci rek baaja neex rek na rek waaw li sëñ bi dégle waaw ñi ñu bëggoon a ñëw te amuñ jot a ñëw loo leen eh? bi rek mën na parce que am na ñoo xamante ne nii bisu daa màggal daaru salaam bi seen xel yëpp a ngi fii ay doole maanaam dafa yamul am na ñoo am na ñu am doole poos ñëw am na ñoo xam ne amuñ doole poos sax ñëw nañ jaayante rek am na ñoo xamante ne dañuy am paasu aller rek paas Touba rek ñëw paas retour bi man la saa dañ koy jaayante ñoom lu métti métti nan jaayante moom boo amee benn 2000 sa war ngaa mën a dugg si biis yi ñëw waaw mais ñenn ñi moom li leen téye du man kenn yàlla la amaana man la sax dañoo wuru woon fekk màggal gi te wax mu am yàlla rek ko mën waaw di leen ñaanal bu màggal amatee ñu am doole poos am xéwal ñëw màggal kom ñëpp rek waaw. waaw kon mbokku taalibe yi dañuy soññi dañuy soññi ndax am na ñoo xam ni dañoo bëggoon ñëw jotuñoo ñëw am na ñoo xam ni ñooñu kër ga di sànni ñeneen sànni leen ñu ay ñaan. ah ñi nga xam ne yàlla def na ñëwuñu ñëpp maa leen di ñaanal gudd fan a wér ñu yàgg a fekk ay magal am doole poos di ko teewee waaw ñi nga xamante ne nii teew nan maa ñun ñi teew dinañ ñaanal ñi teewul parce que baabaal yi nekk fi ak ñun benn bi rek waaw góor jàpp ci góor ba àjjana rek sotti ceeg def ci la rek waaw di leen ñaanal gudd fan a wér rek maanaam ñu am doole poos bu magal jotatee ñu teew ñoom ñëpp rek waaw kon eh, dégg nañ daa mel ah, si baat ndax daa war a waxtaan ak mbokk taalibe yi bu a waxtaan ñoom waaw maama ziar naa la delloo naa ziar wér naka ma toog fii delloo ziar alhamdulilah kay eh, waaw tey loo wax say mbokk taalibe ah man ne moom bëriwul hmm. parce que su am naa leen loo ci doole rek hmm. kon bu war juum parce que suñu kilifa am na leneen lu ñu wax fee bu yàgg ba pare man daal benn baat wax mooy ñu gën a yokkaat laxasaay am yar a ngi dundee lool. ah di nga métti lu rek di nga métti lu baax a baax a baax waaw di xam ni moom affaire yi day jeex quoi yàlla xam na ko mais ñaan yàlla suñu borom sotti ndox mu sedd ci réew mi ba képp koo xamante ni affaire yi moo fi nga bëgg dem nga bu fa dem ngir liggéey Serigne Touba waaw kon bokku talibé loolu ni soñu ñu waccay magal wala bokku talibé ne rek laay sonn ñu wajj magal daru Salam bi di ñew xamna magal Touba bi moom jek jekk nañu say ni su kon tay tay tay sax ñu war ko magal daru Salam day day jeex inshallah day jek nañ waccal magal daru Salam say ni koy wajj mais su ne ba ba ba feebi di ko wajj bo day xaw metti mais su ko ta ci début bi ci dégg bu baax quoi. waaw di la jaajëfal bu baax amal jàmm jàmm si jërëjëf maam Cheikh Anta Mbacke kenn ku ne wax jërëjëf maam Cheikh Anta Mbacke jërëjëf borom gaawaan jërëjëf maam Cheikh Anta Mbacke jërëjëf Cheikh Abdourahmane Mbacke jërëjëf Cheikh Abdourahmane Mbacke jërëjëf Serigne Sidi Mbacke Serigne Sidi Alxuraan na kenn ku ne di jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan te waxaat leen ko ku bëgg a fekkee ñëwal na ko wax kenn ku ne di jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan jërëjëf Serigne Sidi Alxuraan moom sëñ Abdourahmane Mbacke moom sëñ Modou Mamoun moom sëñ sëñ Mame Cheikh Anta Mbacke borom gërëm ak gërëm waaw ah, bokk taalibe bi jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp gisal nuyoo bi sëñ Mountakha déwénati déwénati déwénati sëriñ Sidi noo ngi lay sant noo ngi lay saloo noo ngi lay siyaar. Mbacke moom sëñ Abo moom sëñ Fallou Mbacke Bal yàlla nga fi yàgg tamit. waaye di ziar baax soxna Mame Fatou Mbacké moom Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Bale yàlla nga fi yàgg tëwee di ziar Serigne Fallou di sët ci maam Cheikh mu ñëw jaayante ak Serigne Sidi Alxuraan sa dem moo bu ñun Mbacké ay ñun buñ ñu nawee buñ ñu moo tax amuñu di wax million jox ma na ma barkeelal na ko si bis bi waaw di ñaan yeneen màggal bi ñëw yëpp saa bu ñu ñëw dañoo bëgg maanaam tey ñu ne di yokk di yokk Mbacke Mbacke Balla ñun dañ la bëgg a tabaxal fële si biir Daaru Salaam suñu yéene loolu la wër na Serigne Touba wala ngay màggal si gerte privé di la indi biir Daaru Salaam wër na borom Daaru Salaam ak gaan te Anta Mbacke gaan billaahi wallaahi taala dañ koy dund dañ koy def Mbacke yàgg fi fekk lépp Mbacke alaka maam Serafal su fi alxuraan si Sidi Alxuraan waajuram góor sëñ Xamidu Mbàkke sëñ Xamidu sëñ Xamidu Mbàkke sëñ Xamidu Mbàkke ak sëñ Xamidu Mbàkke moom moom moo nekkoon suñu sëñ Mbàkke muy nekk tout tànk bu ndaw sa papa day toog ba si yàgg góor a jëng la tuddoon ko duppee sëñ Safa Ba góor woo famille bi dëggal ma man laa ko man Gora Dieng yóbbu leen ma Daaru denc ma foofu moom gisee bu ma sëy sii weer ah ma ne paa bi ba maa a di gën a xàmmee mu ngi wax loolu paa bi ne bis bu ko ba denc ko foofu Daaru Salaam dinaa ko xool ba xàmmee ko si Touba di fa dem ci barabam maanaam di ko ziyaare waaw kon man maanaam moom man man bi may bi man maanaam bi may nekk taalibe si Sidi waaw ba boobu maay saa biiru ndey ay wax dégg la laaj wow nga waaw sa papa ya nga wax ya, Mana mana nga wax loolu man damaa ne Massi ma ni waa paa bi moom moom moom ay waxul làkku lay wax te waxee yow la daan salaam lay wax te boobu jaaxal ma loolu te day toogaat du yàgg waan ñu ñëpp ne moom nag mu dugal man dugalaa mais su ma njaamu ma leen ma Hamidou ñu xam ne Mbacke boobu man nekkul man seen Mbacke waaw. man nekk tout tànk bu ndaw saa bu paa bi waxee wala semaine damay xalaat loolu paa bi moom saa bu làqoo Daaru Salaam foofu ñu ko denc dinaa dem ba foofu defaram adama barabam maanaam di ko ziar dafa bokk si si alxuraan moom buñ si yoon waaw ci laa dem ba denc mu dama gis si si alxuraan jéblu ci moom moom woo na ma une heure foog ne sëñ bi lu nekk la may doy mu ne Ibra Niang mën na maa mën na Ibra Niang mën na maa mën na Ibra Niang am bëgg nga jaamu yàlla bu baax te léppay baax fii ak fan jëm matul une semaine nit ku woo ma may ma kër guy jar cinq millions te ngelamu rek laa fa doon nekk fas ak yeneen ak yeneen yu bëri waaw moom buñ demee ba goree doylu yu bëri ñu may daw kenn jëmu jëlee si si yàlla waaw moom dañoo defar ci lépp rek waaw ñun heureusement bu ñu woon seen si alxuraan waaw léeg lay wax. nit nag boo bonee ba ñëpp ne na bon de sëriñ bu baax baaxam yi bu dee benn wala ñaar sax mu wàllo waaw sëy si waaw maanaam noonu la dara di ko ñaanal gudd fu mu wér rek ak lu mbàkk jaw yàgg maa wax sëriñ si mooy kan fekk jamono jooju la port laa ne woon comme chef de division inspection et contrôle dafa liggéey politique nag mosul a nekk sama yiti damaa jàng ñëw di liggéey port nekk fa nag comme car yàgg fa lool politique nag askan bi nga xamante ne ñoom laa dëkkal fii ci ginnaaw raay ñoo ma dugal ci politique mooy jigéen ñi ak ndaw ñi waaye dañuy faral di wax ne booy dugg ci dara foofu nga am wéeruwaay moo tax ma àndal leen de sër si sëriñ sax di leeral sama diggante ak sëriñ bi ndax loolu lu si bëgg wax ni nag Abdou mi Abdou Lahad mi toog mën nañu si waxal ndax la jaar kon amana saay buñ fi daje rek wax waxaat lay doon waaye damay faral di wax ne amul ndax la yàlla suñu borom defaloon sëñ Fallou suñu torandoo moo leen joxe moo leen topp tey ba léegi waaye damay faral di wax ne suñu waa ji kii ñu am kenn amu ko waaye lim ñu mënal kenn mënal ñu Mbàkke mën naa wax ci moom ci biir mën naa wax ci moom ci si biir amaana si zahir sama ànd ak moom yàggul de waaye lu mbindeef mën a xam ci moom xam naa ko ci moom ndax bëtub xol ba yàlla di téyal jaam yi man ci gimle moo ko ba mu mën a xam jëmmam ji mooy kan damay faral di wax ne buñ ko xool ci melokaanam ko xool ci jëmmam ji waaye nañu xool lan la yàlla dëxañ ci moom lan la yàlla suñu borom laax ci moom kuy war Serigne Touba rek jërul chercher de jëlul jërul jéggaani melokaan bu ñu nettali Serigne Touba amul benn buñ la mas a wax ci Serigne Touba ñu ñu dégg ko suñuy nopp te boo xoolee suñu bàyyi si Mbacar Fane doo ko gis Serigne Touba lépp ko wuy si woon jamono waaye bëggul woon lenn lu alxuraan lu mës a am delloo na ko alxuraan waaye itam lépp li nga xamante amaan na ko rek jaay na ko joxaat ko yàlla suñu borom. Serigne Touba amul woon beneen couleur bu dul melokaan bi suñu bàyyi sii di am muy weextaal waaye itam du soppeeku waaw jikko ji ko nit xamee ren rek bu déwénee jikko joojee ngay ngay fekk ci moom. li mu li mu li mu defal mbokk taalibe yi nag amaana ñun. dañoo néew sax sa si si di ko wax waaw ndax mën nañoo lim mën a lim mën a lim ñu dul jeex bu ma bu ma tourné fii ci ñi ma ñi ma mën a gis benn ngi nii muy Lamine Diouf mi toog ñi xamoon démbam ñi ngi fii waaye tey amaana métier ba mu nekk yàlla suñu borom barkeel na ko loo xamante ne nii ku ko si ñëwul ñëw la bu ma doxaatee nii dinaa gis yeneen mbokk taalibe yi ñoom Abdou ñoom Modou Ndiaye bu ma doxaatee nii gis Siteu dama koy faral di wax nag am kilifa goo xamante ni da doon jote ak man bi ma joxee ñuy waxal wax bu jotee ci yow rek day mel ne man fa ma la féete man matuma ko damaa tëdd gént nit kookee tim ma man naan ma léegi nga dee nit kookee tim ma naan ma léegi nga dee néeg bi nga xamante ne sëriñ bi moo fa nekkoon mbir am seen nii si gént gi moo toog si guddi néeg bi sëriñ bi moo génne boppam war a gaax ba dama siñ fàllu dama goo fenn bi mu ko waxee Birame Sène mi moo ko moo ko moo ko jottali waaw te tawat boobu ñi ma jege dëgg-dëgg xam nañ ne fan yii laa si soog a rëcc du dëgg waaw te itam sama ànd ak moom comme ni ko diwlin Lamine waxee euh, Mourine Mbaye waxee sànq loolu luy démb la si diggante maam Cheikh Anta borom gaawal ak suñu maam Cheikh Ibrahima Fall pàcc bi ñu nekk muy Daaru Salaam suñu maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko gor nee na suuf si da ko sàbbal ne ah sa sang ba ne dégg naa lu mu jur du toog si jamono suufu Daaru Salaam wax ak si Ibrahima Fall na ko fii de bis bu fi ñëwee lu mu jur dina toog sëñ Mourou Moustapha bi la gën a àdduna sëñ Fall ak keneen ku mën a lim si Ibrahima Fall si Ibrahima si na ko fekk si jotaay ba di ko woon ginnaaw mu woo mag ñi ne leen kaay leen mag ñi wuy si ko mu ne ko mbàkke gi de xaw ma Serigne Touba waaye man leer na ma si Anta am mag mu koy bës ba fajar jot si Ibrahima Fall daal di daal di daal di tudd turu ne ko démb ba kana yi dënd rëkk ci aras ndax am dégg nga ko mag mu ne ko ah Fall de loolu yaa ko mën a dégg yow bi nga xamante ni doo nitu kase si Ibrahima Fall leeral ko ne ko boobee de sant borom gaar moom lañ doon yokk ay garaatam sant borom mu doon Serigne Touba moo ne Serigne Touba bi mu demee njaboot gi namm ko muy doom muy rakk yi mu fi bàyyoon muy taalibe juróom-ñaari at ya teg ba mu ñëwee laajtewul keneen ku dul Cheikh Anta Borom Gaawar waaw tey dem Cheikh Anta Borom Gaawar moo nekk jëmm ji wan nañu ko si melokaanam wan nañu ko si jëfandinam wan nañu ko si meloom Mbàkke Balla dañ lay ñaanal yàlla suñu borom rek nga yàgg ñunu li nekk si suñuy xol du lu ñuy wax waaye lu ñuy jëf la damay faral di wax li ma yéene ci yow xanaa bakkan bi bañ ko fekke waaw waaye bu bu ko bakkan bi matee rek képp ku am bët dina ko gis te képp ku am nopp dina ko dégg waaw sama yéene ci yow foofee rek laa ko tënk Mbàkke dañuy gàttal foofu kàddu gi am liggéey boo xam ne itam mbokku taalibe yi ñoo ko jaarale ci man nga xam ne seen seen seen passé ak seen bëgg sëriñ bi saa su nekk dañuy ñu jëflante sëriñ bi dañu dañ koy bëgg di jaar la si man muy Cheikh Omar Niang mi nga xamante ni moo jiite daayira weeru dee wi ànd ko mbokk taalibeem yëpp bu mu jaayantee li mu jaayante itam dana ma fal lenn loo xamante nii dinaa ko yóbbu sëriñ bi te du jaar sa loxo du am mu jël xéwal gi Mbàkke Balla teg ko sama loxo ngir ma jébbal la ko nee na itam Cheikh Omar sëriñ bi mi ngi joxe ndigal ngir ne boo fi nekkee rek nga jege ko waaw muy xéwal gi nga xamante ne nii nee na xeeb na ko lool waaw ak ñu mu ko àndal yëpp xem ne sama mbokk taalibe yi ma fekk maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di ko jiital ci Serigne Fallou Fall ak ñoom Abdou Seck ñoom jëwriñ moo jaay ñoom Sita ak sama mbokk taalibe bi ma àndal muy jëwriñ Aline Fall ak Babacar Dieng maa ngi leen di nuyu di leen bu baax ak Bassirou Dieng Ibrahima sëñ Abdourahmane. Ah! Ibra Fall mu sëñ Abdourahmane Boisson. dafa am lu dafa am li xam. ndax dafa waxoon daaw ni. mu sëñ bu déwénee. mu ni Serigne Sine alxuraan bu déwénee. danaa sos sama groupe bopp dinaa sos sama groupe bopp. ñëw fii jébbal addiye. ñëw fii jébbal addiye. ah man ah ne ko ah xam naa ne ay dóor la rek. ay dóor la rek. ko ay dóor rek. waaye ndekete yoo. waaye ndekete yoo. lu mu waxoon lépp lu mu ngi ci. kon boisson. kon Ibrahima Fall boisson. demal ba pare. Serigne Sidi demal ba pare. demal ba pare. mu door dem mu dem. kon Bismillah Ibrahima Fall. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf jeuf jere jeuf mbacke dama bëgg ko fi tànn si Abdourahmane fee la tok ci garab gi di jaayu rek amna na bis ma jox ko ñaari caisse boisson kan moy serigne ko seyidi mu ni teg di ma tooñaa ma ma tudd de man ko mbacke moy sama serigne mu reene ni ma yaay de ba nga ko xam ma fi jamono ji ma wax ni jamono ji lu mu wax sëñ Abdourahmane Mbacké def ko billaahi wallaahi jamono ñu toll nii sëñ si lu mu wax sëñ Abdourahmane Mbacké ko def kon Mbacké ñu ngi ñaan ci barke sëñ Abdourahmane def ñu ay milliardaire sëñ Touba dañ la ko yéene xam naa ne sëriñ bi nee na nag li ñu waroon a waxtaane yëpp dañ koy faral tënk gàttal ko rek ndax ñu war a séddale ndax ñi nga xam ne ñoo war a dem séddale reer yi daanaka heure bi dafa jot daanaka heure na waaw dañ koy gàttal rek. kon sëriñ bi nee dañuy tëgg wax ji te gàttal ko. di di gërëm nag ñi fi ñi fi jëf suba avant bis bi. nee nag mu ngi gërëm ñi nga xam ni ñoo jëf avant bisu màggal gi. ak bisu gi. ak ñi jëf ci bisu màggal gi. ak ñu mujj jëf léegi ci guddi gi. ak tamit ñu mujjee jëf léegi ci guddi gi. ñu ku ni mel ni sëriñ la Diouf mii. Gila gila gi gis ni moom moo Gila jënd gëlëm gi ñu gis ni moom moo ko jënd boole ko addiyam boole ko addiyam bu takk sita gis sita gis naa teranga yi sita mbar sëriñ bi nee na gis na teranga yi Abdou Seck Abdou Seck gis na teranga yi bu baax sëriñ bi nee gis na teranga yi bu baax Modou Ndiaye ginnaaw raay Modou Ndiaye ginnaaw raay gis na teranga yi baax sëriñ bi nee gis na teranga yi ak sa taxawaay ci daara ji sembel sembel gis naa teraanga yu baax sëriñ bi nee na gis na taxawaay bu baax mboolem guddi gi ñu fi jot a jëfaat ñëpp nga xam ne ñoo fi jot a jëfaat ci guddi gi sëriñ gis na lépp sëriñ Fallou Fall sëriñ Fallou Fall al Kabir ak daayira weer wu bi nga jébbale moom nga jébbale gis naa teraanga yu gis na teraanga yi bu baax monsieur monsieur le maire. gis naa teraanga yi baax. Serigne Sidi Alxuraan nee na gis na teraanga yi bu baax a baax a baax. fukki at Serigne bi nee ànd gi ëpp na fukki at. yoo xam ne ni màggalu Daaru Salaam màggal Touba gu ne. sag màggalu Daaru Salaam wala màggal Touba bu nekk. mu jënd nag. mu jënd nag. boobu sax dugul ci affaire politique. Serigne bi nee na boobu sax dugagul ci wàllu politique. kon loolu ndax ànd wuñ affaire politique. kon Serigne bi nee na ñoom ñaar ànduñu wàllu politique. jëmmi Serigne Touba lañ ànd. nee na jëmmi borom Touba Xaadim Rasul lañ àndee ak ko sori ñëpp xamee ko noonu nag kon sëriñ bi nee na nag ko ñëpp xamee noonu seen diggante ñoom ñaar sëñ bi sëñ bi dana di sëñ ndax sëñ bi dana ndax sëñ bi dana nañu wooteel diw ndax sëriñ bi nee na nañu wooteel diw déedéet wax sëriñ Sidi alxuraan nee na déedéet wax day leer nee na wax day leer andewuñu affaire politique nee na ak monsieur le maire andewuñu wàllu politique diggante diggante nit ak wasilam lañu ànd taalibe ak wasilam lañu àndee ak sëriñ bi nga xam leer na sëriñ bi nee na xanaa loolu leer na. waaw Mbacke leer na ñàkk net nettali xanaa leer na. nee na waykat bi moo nettali xanaa loolu leer na. dama ne ñi yàkkamtee nettali la xanaa loolu leer na. ñi yàkkamtee nettali xanaa loolu leer na. leer na nañu Mbacke. heure bu ne nag. heure bu nekk. Aliou Fall mi ngi may woo rek. Aliou Fall mu ngi woo sëriñ bi rek. di Seexu Lamine Diouf. di Seexu Lamine Diouf. sëñ bi. ni ko sëriñ si daal xuraan. ndax gëléem gi dañ koy andi tey. ndax gëléem gi dañ koy andi tey. wala suba wala suba. wala heure bu la neex. wala heure bu la neex. lépp yëg naa ko lépp sëriñ bi nee na yëg na ko. Adama Fall mii tamit. Adama Fall mii réew mi. nekk kilifa réew mi. kilifa réew mi. kilifa réew mi. am lu ko fal. am lu mu ko fal. du problème loolu laa koy sant de. sëriñ bi nee na loolu la kay santee de. li mu ko fal wala nee na lu mu ko wala loolu. moom la concerné. loolu moom la concerné. waaye sama digganteeg moom. waaye digganteeg ñoom ñaar. jëf ji dafa jokk ci kër gi ba pare. dafa jokk ci daara ji. xëy na li ci ginnaaw li ci ginnaaw liñ daan gisee bëriwul liñ daan gisee ñoom ñaar xëy na bëriwul loolu la ma wax ren waaye loolu la ko wax ren fas naa li ci kanam lu ne ni ko fas naa li ci kanam lu nekk màggalu Daaru gu ne màggalu Daaru Salaam bu nekk ma jënd nag ma jënd nag wala ma jox la njëgu nag wala ma jox la def na ko ren def na ko ren Boisson Boisson li nga jëf li nga jëf gis nañ ko bu baax gis nañ ko bu baax doole gàttal ndax heure ndax dañ ko doole gàttal bu baax rek. dañ koy gàttal rek ndax heure bi jot na presque. ndax ku ci ne. ndax ku ci nekk. juróomi ngi lay dàq la jot. juróomi ngi lay dàq te na la jot. heure bu ne mi ngi lay dàq rek. heure bu nekk moo ngi lay dàq te dina la jot. ki ci njëkk ki ci njëkk. ku ci njëkk. ki ci njëkk. ku ci njëkk. faalewul affaire guerre. نانا كيغا خامني فاليوول افير غير سوخلوول 5000 سوخلاول 5000 ولا 10000 ولا 10000 ولا ميسوي ولا ميسوي ولا اي جنار ولا اي جنار ملك الموت موي ملك الموت الله اكبر سروغ لا سوخلا نانا كوكو سروغ رك لا سوخلا مونو خوب بوتاخ مو داو مونو خوب نيانغال نيانغال باتاخ مو داو munoko ger munoko ger taxu mu la fi ba tax mu bàyyi la fi lo laq lu mu sori lo laq laq lu mu sori sori sori la fa nee mu fekk la fa malakul maut muy koku moy malakul maut allah akbar gay mi ñaata gay mi ñaata ben bi ñaarel bu ko ñaarel suuf suuf mi nga rek mu ngi rek dila xaar dilay xaar rek léegi mu ba ci yag mu tok ba ci yag di mu déeguta mu ne ah diw mii moom deeweegut rek. mu ngi bëgg a yàgg de. mu ngi xaar naa ko ba sonn. xaar naa ko ba sonn. gaawal ñëw de gaawal ñëw. gaawal ñëw. ba ma lekk sa yaram. ba ma lekk sa yaram. diw moom kañ lay de diw moom kañ lay dee. yàkkamti naa ko lool. naa ko rek. muy ŋaa di xaar suuf di ŋaa rek di xaar. allahu akbar. te yàgg yàgg. te yàgg yàgg. dana la jot. dina la jot. muy ñaata. muy ñaata ñaar Mbacke Bal. sax yi sax yi nekk ci biir bàmmeel. sax yi nga xam ni ñooy nekk ci biir bàmmeel ñu ngi xaar rek. ñu ngi xaar rek. pour seeñu pour seeñu. saa bu ñu xëyee rek. saa suñu xëyee rek. kañ lay ñëw. ñu ne diw kañ lay ñëw. bañ seeñu ko. bañ seeñu ko. gudd na fan na fan lool. gaaw na gaaw. ñëw ñëw. jot ci. bañ jot ay di kañ lay dee. ay diw kañ lay dee. muy ñett muy ñett. allahu akbar. ñi nga amee euh, say ndono. ñi nga xam ni ñoo war a doon say ndono. ñi ngi xaar rek. ñu ngi xaar rek. dañu ba ci ñu toog ba ci yàgg. ndax paa bi déggul. ndax paa bi déggul. saa bu ñu xëyee yërnu. saa suñu xëyee rek yërnu di xool foo toll. di nuyoo nuyoolu. di nuyoo nuyoolu. fekk dañuy seet ba xam. fekk dañuy yoo dañuy seet ba xam. ñu ngi lay doggileem déet. ñu ngi lay doggil wala déet. wala ñu déent. wala ñu déente. paa bi déggul ba léegi. waaw paa bi moom déggul ba léegi de. allah muy ñeent. muy ñeent. bu ko juróomeel. bu ko juróomeel. di nga amee laq. ñi nga amel ak ñi nga xaar rek ñi nga xaar rek bañ peese say jëf bañu ñu peese say jëf ba sa jëf yu bax yi ëpp ba sa jëf yu bax yi ëpp ba nga wara dugg aljana ba nga wara dugg aljana la nga am ko da nga am ko neew jëf ju bax la nga am as neew ci lu jëf lu bax ñu ko toneet yu ñu ko ko yu yóbbu sa jëf ju ñaaw bàyyi fa sa jëf ju ñaaw nga dem sawara nga dem sawara maxaamaatu xayru xel maxaamaatul xayru xel maxaamaatu xayru khairu an xayri rabbi مخيابة فلتقرأ سورة النجم محمد خير خلقه محمد خير خلقه أنا كسب يا رسول الله محمد خير خلقه أنا خير ربي مخيابة فلتغر عن صورة النجم محمد المتار لا خلق عليه السلام ما من غير ذنوبهم محمد المتار Serigne Lamine Diouf mu lay toog sol yëre beex bi sol garaam boobu rëy bi tamit gis nañ tabaski bu ne sëriñ bi nee na gis naa ni tabaski bu nekk mu jënd xar tabaski mu jënd xaru tabaski andi ko andil ko sëriñ bi. waaw moo sol yére bu weex bi di toog. sëñ Lamine Diouf moo sol baylaat bu weex bi toog. ku jar a xàmmee la ci daara ji. ku jar a xàmmee la ci daara ji. di ku baax ku woyof ku am taalibe. gis nañ jëf ji bu baax a baax baax. sëriñ bi nee na gis na jëf ji bu baax a baax a baax. Seydina Omar bi mu nekkee amirul muminina. Seydina Omar bi mu nekkee amirul muminina. nekk kilifa jullit yi. nekk kilifa jullit. dafa ñëw ci armeel yi. dafa ñëw ci armeel yi. السلام عليكم السلام عليكم يا اهل المقابر يا اهل المقابر من نيو ما لين نيو من يو نيو ما لين نيو ني ني تيل ني لا ني ني تيل جيرجي جيرجي سنجي مو وخات كو مو وخات كو السلام عليكم السلام عليكم أهل المقابر يا أهل المقابر néew yi néew yi maa ngi leen nuyu maa ngi leen di nuyu ñu ni cell néew yi ni cell mu waxaat ko mu waxaat ko ni asalaamaaleykum ni asalaamaaleykum ya ahlal maqaabir ya ahlal maqaabir yéen néew yi yéen néew yi nuyu naa leen nuyu naa leen ñu ni cell nee na néew yi ni cell mu ne ma hadasa minkum mu ne ma hasada minkum ما حدث منكم ما حدث منكم لن مو خيو تيين لن مو خيو تيين ني ني تيل ني ني تيل موني ما حدث منكم موني ما حدث منكم لن مو خيو تيين لن مو خيو تيين ني ما حدث منكم موني ما حدث منكم ما حدث منكم ما حدث منكم لن مو لن مو خيو تيين ني تيل موني تيل نوي نلان ني لن لو خيو لن لو خيو تيين ñu ni ciel ñu ni ciel mu ne nak wuyu len ma waxoo leen ma lu xew. waaye man dinaa leen wax lu xew seen ginnaaw. waaye man dinaa leen wax lu xew seen ginnaaw. li xew seen ginnaaw mooy. li xew seen ginnaaw mooy. seen kër yi. seen kër ya dëkkee nañ ko. dëkkee nañ ko yeneen dëkkee ko. naneen dëkkee nañ seen alal yi. seen alal ya. doon nañ ko. dondu nañ ko. seen jabar yi. seen jabar yi yeneen ponkal. yeneen ponkal doon nañ ko. dondu nañ ko. Pam Ndiaye. Pam Ndiaye. ne ko ne ko fi. Pam Ndiaye bëgg dafa génn. moom moom Baba Kabar gi

ci bato bay daw der bato bay daw Bamba ka bar ci bato bay der ba topp ca samba gambar géej kere ba nu wootee ba ca ndar xaadima taxaw ni yàlla rek man da kaw borom ku na man borom kanu noon ba dafa rey xaj daf cay pexeem yàlla bi tax na daaja gaaya ca juróom yi juróom yi fig mu ngi nekk rek fig mu ngi nekk rek na nga dalal sa xel fig la ko wax Lakawah, nenako, wax fix semanggur ko nee fix ko fekk sama nguur gaa sax fiig sama nguur gi mo ngi sax takal sa ndig takal sa ndig kontina sa jamu yalla kontina sa jamu yalla fek fi nguuram sax fek nguuruk suñu borom gi mo ngi sax fek telephone Gambi fek telephone woo Gambi telephone woo Gambi ñu ni nañ ñu ni nañ wala Guinée. ñu ne làqu na démb. ñu ne làqu na génn démb. nga téléphoné jàmm gën. wala nga téléphoné jàmm gën. léegi lañ ko doon suul ñu ni léegi lañ ko doon suul. amul fik amul. takkal sa ndigg. takkal sa ndigg bu baax te jàmm yàlla. fik déggoo ñu tàggee yàlla rek. fik déggoo daal ñu tàggu yàlla ñu tàggee yàlla ak fu mu mën di doon. wala ñu coup d'état yàlla. wala ñu coup d'état yàlla ak fu mu mën di doon. takkal sa ndigg. takkal sa ndigg. découragé bul découragé. te jàmm yàlla. allahu akbar mu waxati ko ni ko. mu waxaat ko ni ko. fekk sama magasin yaa ngi fees. fekk sama magasin yi mu ngi fees. ci xéewal ci xéewal. bu ragal xiif bu ragal xiif. xéewal yi maa ko yore. xéewal yi man suñu borom maa ko yor. mu waxati ni ko. mu waxaat ko ni ko. fekk gisoo man la. fig gisoo mani la yow yonent bi yow yonent bi sallallahu alayhi wa lu la neex defal lu la neex defal fig déggoo loolu rek fig déggoo loolu rek na nga moytu na nga moytu ak bàkkaar allahu akbar li fekk li fekk Iblis a ngi dund. Iblis mu ngi dund. déggoo ñu tàgge Iblis. déggoo ñu tàgge Iblis. bul yaakaar ni mukk. bul yaakaar ni mukk. bul yaakaar ni mukk. bul yaakaar ni mukk. wala nit ki bu mu yaakaar ni mukk. wala nit ki bu mu yaakaar mukk. da ngay texe. force ni day texe. fekk Iblis fekk fekk Iblis a ngi dund. fekk Iblis mu ngi dund. bul yaakaar ni ay ay pexeem. bul yaakaar ni ay pexeem. nga cee rëcc. man nga cee rëcc. mu ne ko li fekk. mu ne ko lu fekk. man suñu borom. man suñu borom. ma mos a wóolu sama pexe. ma mos a wóolu samay pexe. fekk fekk jéggiwoo siraat ba dugg aljana ba pare. fekk jéggiwoo siraat ba dugg aljana ba pare. bul naagu ci samay pexe. bul naagu ci samay pexe. falaa yaamuru. falaa yaamuru. falaa yaamuru. makarallah. makarallah. ilal xawmul xaasiruun. ilal xawmul xaafiruun. bismillah. bismillah. madinatu ilmin. مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوبي ومن سلمي مدينة علم أنا كسب يا رسول الله مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوبي ومن سلمي مع الله ونينا نبي كل فاسدي وسرت بها عبدا خديما بلا ومي سرين سيدي القران يالنا ñi seer na suñu yaay sëriñ bi nee na ñu ngi ziar suñu waajur wi yaa may jëng yaa may jëng ak yaa tuuti fall ak yaa tuuti fall ñu leen nuyu di leen ziar bu baax sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ziare di ziare سيرين ابو مبكه في يالا جيتال مفي يالا ني بوروم دا فا واخ سي القران ني يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا هل ادلكم هل ادلكم على تجاره على تجاره تنجيكم تنجيكم من حساب اليم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله في سبيل الله باموالكم باموالكم وانفسكم وانفسكم ذلكم ذلكم خير خير لكم لكم ان كنتم ان كنتم تعلمون تعلمون يغفر يغفر لكم لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات جنات تجري تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن سالك الفوز حسيم الله أكبر yàlla nee na suñu borom nee na watu jaahiduna fi sabilillahi bi watu jaahiduna fi sabilillahi na ngeen di jihaad na ngeen di jihaad jullit yi yéen jullit ñi ku bëgg am ku bëgg am nee na marchandise bu du lamb mukk marchandise boo xam ne du lamb mukk adduna alaxira adduna ak alaxira jihaad na ngeen jihaad bi am waalikum bi am waalikum wa anfusikum seen alal ci seen alal seen bakkan ak ci seen bakkan waral lu waral yàlla yàlla njëkkee njëkkee alal alal door cee cee teg bakkan waaye laaj naa leen bi nee laaj na leen ko mu leeral wala mu bàyyi dégguma de Mbacke leeralal Mbacke. bakkan ni mu bakkan nu mu fooree. yàlla njëkk suñu borom njëkk xaalis. ba pare ba pare door cee teg bakkan. door cee teg bakkan na ngeen jihaat ci xaalis. na ngeen jihaat ci xaalis. door cee teg bakkan door cee teg bakkan lan moo waral mu ci bakkan. ko wax. Ya- ngand. bi ngande. xam nit. suñu borom xam nit. gisal rek. xoolal lii rek lu tax mu njëkkee xaalis lu tax mu njëkkee xaalis door cee teg bakkan door cee teg bakkan dafa xam ne nii dafa xam ni nit nit xaalis la gën a bëgg ci deretam xaalis la gën a bëgg ci deretam ma jox la preuve sëriñ bi nee na mu jox la preuve da ngay jàpp sàcc sëriñ bi nee na da ngay jàpp ab sàcc jël sa liif jël sa yat bu rëy wala sa karawaas wala sa karawaas ni ko tëb di di nga ne ko tëb dara ji sànni dara ja sànni mu naan jëluma ko de mu naan jëluma ko de tëb nga di tëb ko de mu naan la jëluma ko de tëb nga di tëb mu ne jëluma ko de mu ne ko wër ko ba dara ji wër ko sang ko ngay dóor rek ngay dóor rek mu ne jëluma ko de soo bàyyi mu naan jëluma ko de bàyyi ko ba nga bàyyi ko mu sangu ba set mu sangu ba ji faju ji lekk jël xaalisam lekk yàlla xam nit yàlla xam nit Pam Ndiaye Pam Ndiaye bismillah bismillah Cheikh Sidi la yàlla faale nan ko faale ku faalewul Cheikh Sidi bu leen ko faale Cheikh Sidi la yàlla faale nan ko faale ku faalewul Cheikh Sidi bu ko faale ku ko faale seex siidi la yàlla seex siidi bu leen ko faale la yàlla faale nan ku faalewul sëriñ si di wër ko faale bi saasam dañ ñam xëy rek yonent bi sallallahu alayhi wa bu noppee nag bu noppee Birahim bi bu alayhi wa fi bu leen gëjee jox wala dara. mu ni léegi léegi boo leen gëjee jox wala dara. ñu ne ah dañ ko doon jey rek. ñu ne ah dañ ko doon jey rek. wa minhum wa minhum. wa minhum. man yalmisu ko fi sadaqaat man yalmisu ko fi sadaqaat. fa in naxtoo. fa in naxtoo. fa in naxtoo. فإنهته فإنهته منها ردوا منها ردوا وإن لم يهتوا وإن لم يهتوا منها منها إساهم إساهم يسخطن يسخطن دنجرن جيرك دنجرن جيرك rek dañ ko الذين يلمسون الذين يلمس يل يل يلمسون يل يلمسون متوهين متوهين من المؤمنين من المؤمنين في الصدقات في الصدقات xam-xam say ngoro sëriñ mi nee na booy ngoro l'islam may na la nga xool ko l'islam may na la nga xool ko benn xool ko benn yoon. nga xool ko benn yoon. kon la waa ji defoon rek. kon la waa ji defoon rek. dafa xëy dafa xëy. dafa xëy. xool ki ngoro. xool ki ngoro. suba suba ba guddi. suba ba guddi. soxna si ni ko. soxna si ni ko. li nga def. yow li nga def. lislaam sant la ko. lislaam santu la ko. ndax bi nga xëyee ba léegi. ndax bi nga xëyee ba léegi. yaa may xool rek. yaa ngi may xool rek. waa ji ni ko waa ji ni ko génnuma lislaam génnuma lislaam ndax suba ba léegi ndax suba ba léegi xool bu njëkk ba xool bu njëkk ba ci laa nekk ci laa nekk ba léegi pareeguma guma ni ko gëmaguma xefaguma xefaguma sëñ Jaw sëñ Jaw sànni ci kàddu sëñ bi nee na nga sànni ci kàddu ñu door ko ne loolu dinaa ci sawar nee na léegi la ko ko déy nii nga jottali ko ko Pape Ndiaye. pour mu jottali ko Pape Ndiaye. Pape Ndiaye ren xam a dàq si sëriñ si sëriñ mbubb. Pape xam naa ne ren yaa nar a dàq si sëriñ mbubb. tay ci fële bi. nee na fële nga xam ne fa lañ nekk ca raay bi. bu ñu reeree ba pare. dañ fay fanaanee yëngu. dañ fay fanaanee yëngu. ci raay bi ci raay bi. la wax léegi. xam dafa am benn waay bu doon jaay xam-xam sëriñ bi nee na dafa am benn waay bu doon jaay xam-xam yàlla may na ma ma waay laaj rek ma leeral ma tontu la ci mu ni ah yàlla may na ma te lu ma waay laaj rek ma tontu la si ne ko ci lu mel nan sëriñ mi ne ko ci lu mel nan mu mu ne ko ci lislaam lu ma ci waay laaj rek mu ne ko lu ma ci waay laaj rek ma la ma tontu la ma ne ko ne ko ci lu mel nan sëriñ ne ko ci lu mel ci wàllu diini rek mun ma ci wàllu diine rek. ma ko ma ne ko rey nit. sëriñ bi ne ko rey nit. ak dem ci jabaru jàmbur. ak dem ci jabaru jàmbur. ban moo gën araam. moo gën a araam ci ñaari yooyu. mu ah xanaa rey nit yaakaar naa. mu ne ko ah xanaa rey nit naa. waaw ko léegi. sëriñ bi ne ko léegi. lu waral rey nit. lu waral rey nit. ñaari ñaari seeral ñaari témoin lañ la laaj. ñaari témoin lañ la laaj. bu dee jabaru jàmbur. bu dee jabaru jàmbur. ñeenti témoin ñeenti témoin. xam nga loolu de moom xaw na maa jaaxal tuuti mu ne ah sëriñ bi loolu de moom xaw na maa jaaxal tuuti kon nañ bàyyi boobu da nga laajaat kon nañu bàyyi boobu da nga laajaat ma beneen laaj ma ne ko sëriñ bi ne ko tuur ndox tuur ndox ak mën yu ak mën yu moo ci gën a nekk sobe ñaar yooyu ban moo ci gën a nekk sobe ah, xanaa tuur ndox mu ne ko ah xanaa tur ndox ma ne ko lu waral sëriñ bi ne ko lu waral tur ndox tur ndox day aaja nga jàpp rek day aaja nga jàpp rek bu dee mën yu moo génn ci yow bu dee mën yu moo génn ci yow rek day aaja nga sangu day nga sangu farata lu waral loolu kon lu waral loolu mu ne ba na ma de mu ni ba tey jaaxal na ma rek mooy li ma comme caw li ma laajoon rek mu ni comme caw li ma laajoon sëriñ bi rek ci gént ci wàllu gént li ma gént noo ko gisee mu ni ko sëriñ bi gént noo ko gisee ma ne ko nag sëriñ bi ni ko gént kon ni ko alxuraan andee rek kon ni ko alxuraan andee rek wa maa yaalamu taawilu ila allah gént gént yàlla koy sol nit rek suñu borom moo koy sol nit moo koy sol nit rek moo koy def ci nit ndax ñaari mën ñu bokk luñ gént ndax ñaari nit mën na nañoo bokk benn gént bu ñu gént duñ bokk luñ firi te ñoom ñaar duñu bokk luñ firi ibnu sira ibnu sira mi yàlla mayoon mi yow mi mu ni kenn ki yow mii balaa déwén balaa déwén da nga aji si fii mag di nga si fii mag keneen ki keneen ki balaa déwén mu ni ko balaa déwén dina la rey dina la rey te ñoo bokk lu ñu gënt te ñoom ñaar ñoo bokk lu ñu gént moo tax am na loo xam ne nii moo tax am na loo xam ne nii yàlla la koy xamal rek suñu moo la koy xamal rek da dégg da ngay dégg ñu naan da ngay dégg ñu naan boo géntee ndox xéewal la boo géntee ndox xéewal la waaye bu dee ndox mu nax nag waaye bu dee ndox mu nax nag xam nga duñ ko leeral xam nga loolu duñ ko leeral gént dafa bari façon sëriñ bi nee na gént dafa bari façon ci biir gént gént nitu yàlla dafa am gént nitu yàlla gént yonent ak gént yenent ak waliyu ak waliyu ak ku reere cere ba suur ak ku cere ba suur ak ku xiif ak ku xiif ku xiif ak ku xiif benn bokk ci benn bokk ci wallaahi mbag xam nga ñu bëri bëri bu ñu xiifee sëriñ bi nee na ñu bëri bëri bu ñu xiifee fande ci guddi gi fande su guddi gi da ngay gis ñu gént da gis ñu gént di lekk di lekk am xiifaay bee tax ndax xiifaay bi moo tax boobu benn bokk ci sa morom ndax gént moo tax benn bokk ci ak moromam gént nitu yàlla gént nitu yàlla yonent yonent walliyu walliyu ku reeree cere ba suur ak ku reeree ba suur ak ku ak ku xiif benn bokk ci sa morom nee na benn gént bokk ci sa morom ñu ngi sant gërëm ñëpp nag sëriñ bi nee na mu ngi sant di gërëm ñëpp nag Tamsir Mbaye mii nag Tamsir Mbaye démb la ñoom ñaar seen ànd démb la woon te kóllëre rek sëriñ bi nee na tey jii la gën a dëgër sëriñ bi nee na ñu ngi fedd laat seen kóllëre bu baax ñoom ñaar waaw Ousseynou Ousseynou wëcc DG sëriñ bi nee na DG day jëf ci daara ji bu baax a baax a baax sax nee na DG bu baax a baax baax bu baax baax baax na ñëpp nag na sant na ñëpp ñu jëf ci màggalu Touba gi ñu jëf ci màggalu Touba gi ci nag yeeg ci nag yeeg gëléem yi gëléem yi fàttuwu ci kenn sëriñ bi nee na bu boobaa rek bu boobaa rek bu boobaa buñ bu màggal Touba egsee. bu màggal Touba egsee. bañ jënd seeni nag. bañ jënd seen i nag. jënd seeni i gileem. jënd seeni i gëleem. bañ reer ba nopp. bañ reer ba nopp. naan naan ndox mu sedd. naan ndox mu sedd. dana leen sant dana leen sant. jërëjëf Mbacke. mu ngi nga yàgg loolu tamit. na ñëpp wax sëriñ Sidi Mbacke alxuraan yàlla na fi yàgg tawér ak ci dal bi sëriñ bi nee na bu ko defee mbokk taalibe yi ñu àgg ci dal bi féexee rek bu ñu féexee rek sëñ Fallou sëñ Fallou Fall kii Abou ak abu Sall jëwrin Abou sàll yaag ñi nga àndal yaag ñi nga àndal ngeen dajale seesi ngeen dajale seesi dajale seesi dajale seesi